waaw onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim yéen mbokk internet yi suivre Lamyn TV ñu ngi leen di nuyu di leen di jaar di leen di jaajëfal comme ni ñu koy defee saa su ne comme dañoo jege ci feetu tabaski nag ñu ngi leen di baalu àq di leen di baal waa di ñaan yàlla def ñu fekke waat koy at yu bëri te tal ko ah. yàlla yoo ko xéewal yu def wér gu yaram mbas mi fi nekk nii coronavirus bi yàlla jëlee ko fi def jàmm si réew mi yokku xéewal yi yokku wërsëg yi si lu waay nekk rek di ci yëngu yàlla la ci yàlla jàppale tey nag di mercredi le mille vingt 2021 dañoo ñëwaat ak yéen comme ni ñu ko defee chaque mercredi si lu ñuy wax le journal di mbapat maanaam jox leen résultat yi làmb yi jot a am ak programme bi programme bi na xam naa du demee noonu ndax mbas mi mais résultat yi indi nañ leen tey résultat wu yoo xam ne yaakaar naa mosul am ci Lamyn TV parce que jot nañoo collecté lu tolloog vingt trois gala maanaam ñaar fukki làmb ak ñett yoo xam ne jot na résultat ñu fas leen ko fas yéene ko baaxee ak yéen si si biir journal bi donc dañuy dem droito bii rek ci làmb yi nga xam ne am na si période tabaski période tabaski nag dafa am avant pendant ak après ah. donc dañuy commencer ci le 18 juillet bi gars yi di waajal noonu tabaski bi lamb ji amoon joof yor ki nga xamante ne moom mooy maam Fade bu joof yor moom moo ko jëloon ci kaw jibi wala caat bu fiisel poids léger ba ay dara bu joof yor moom moo ko jëloon ci kaw Moussa Senghor Moussa Senghor bu lul seeseen mbëri Ibrahima Bakhoum ibulu lan oui léegi ci le 20 juillet veillu tabaski bi fi nga xamante ne moom mooy ngéeñan amoon na benn mbapat aussi ki nga xamante ne moom mooy mbir njool bu Joal moom moo ko jël ci kaw dëcce bu Papa Man ba tey fi nga xamante ne moom mooy Kobangoy foofu aussi amoon na mbapat Mouhamed bu Kobangoy moom moo ko jël à domicile waaw loolu ci veyu tabaski bi la woon léegi ci jouru tabaski bi le 21 juillet ci mercredi bi jouru tabaski bi fi nga xamante ne moom mooy joyin am na lamb bi fa amoon Pape Maroon Pape Maroon bu joyin sàkku xam-xam moom moo ko jël à domicile jël ko ci kaw ndax bu ndimaagan gaa yi jóge si tabaski bi jàll ci lendemain tabaski bi deuxième jour bi foofu aussi lamb yi bëri woon nañ trop c'était le 22 juillet ci jeudi bi fi nga xamante ne moom mooy sum loog Ablaye Diop sum production moom moo fa woote woon tegaloon gaa yi oto barrage bu bawut wala alaa alaaji maam wala alaa maane bu bu bawut moom moo ko jël ci kaw arobase mbay mari mbay marian ah, bu mbulum donc arobase xaw ma bu bawut moom moo jël oto bi foofu noonu ca ca Sumloog fi nga xamante ne moom mooy ngéeñan aussi am na benn lamb bi ñu fi tegoon nag ki nga xamante ne moom mooy El Hadj bu papa man moom moo ko jël ci kaw Cheikh Cheikh Ala Acu bu Njanda fi nga xamante ne moom mooy gànjaay foofu lamb jiñ fa tegoon Toubacouta Toubacouta booru Saalum boroom jamono moom moo ko jël si kaw Papu Ngaan Soosoox loolu gànjaay la xewoon léegi fi nga xamante ne moom mooy mbadat waaw foofu ñoxor alias Diène moom moo ko jël ci kaw Salmon Faye jilaas lamb ji fa amoon ñu tegoon ñaari tonu ciment yi ki nga xamante ne moom mooy Maodo bu jilaas moom moo ko jël si kaw Lamp Fall bu jilaas ñaari waa jilaas ñoo finaalu à domicile fi nga xamante ne moom mooy fa saaxoor wala taxar baal wala toog kaan noo leen bëggee rek Maam Faali laa diifa Maam Faali bu Fambine moom moo jël fa saaxoor ci kaw pakala bu feeliir fi nga xamante ne moom mooy fiisel tamit foofu doomu Fissel moo fa euh, imposé wu à domicile muy dem Mbissane moom moo ko jël jël ko si kaw ndaj bu ndimaak donc remarque bi balaa ñoo sori mooy lan gars yi jël à domicile bëri nañ maam Fadé jël na à domicile moo ko ay dara bu joof yor waaw Mouhamed jël à domicile fi nga xamante ni moom mooy Kobongoy Pape Maroon jël à domicile waaw waa Jilaas yi ñaari waa Jilaas finalu à domicile Fissel aussi foo Fodé Mbissane jëlaat à domicile donc gars yi si tabaski bi ku ne ah, da nga ne li xew sama du génn léegi bu ñu jógee si deuxième jour bi dañu jàll ci troisième jour tabaski bi le 23 juillet ci vendredi bi foofu aussi Diofior amaatoon na lamb nag lañ fa tegoon ki nga xamante ne moom mooy Mame Fadé rek encore une fois moom moo ko jëlaat ci kaw Pierre bu Fimela fa Fadé jël lamb bu Diofior bi donc maam mama janga jom Diofior comme ni ko mbayang di waxee yaa seeka weta Mame Fadé fu dangu tasag naa te mama janga jom Diofior ah Mame Fadé moom moo jël Diofior le 23 juillet troisième jour tabaski ci kaw pierre bu Fimela fi nga xamante ne moom mooy Diouroup foofu biram Mbissine moom moo ko jël ci kaw El Hadji Sow wala X9 foofu Diouroup njongoloor ba tey ci 23 juillet bi ci vendredi bi foofu soosoox moo ko jëlaat ci kaw El Hadji Thiaw Sow X9 waaw x ñaari yoon ci même jour bi gars yi dañoo jóge Diouroup ci même guddi bi ñu jàll fi nga xamante ne moom mooy njongoloor X9 dafa ñàkk ñaari final ci même guddi gi Birame Mbissine daan ko Diouroup Sossokh daan ko fi nga xamante ne moom mooy Njongoloor ñu wax leen aussi foofu ca ca Diouroup foofu X9 moom moo daan ki nga xamante ne moom mooy Sossokh moo ko daan quart de finale moo daan quart de moo daan Paponguane Sossokh quart de finale Diouroup ñu dem fi nga xamante ne moom mooy Njongoloor Paponguane daan ko final donc 1-1 noonu ci benn guddi gi ah oui léegi ba tey kawoon kawoon Saalum amoon na làmb ki nga xamante ne moom mooy doomu Saalum bi tamit Batista Batista bu Kaolack moom moo ko jël ci kaw ñoxor alias Dieng waaw fi nga xamante ne moom mooy ngoon yi amoon na lamb foofu Pape Diame Neymar bu Jonwaar moom moo ko jël ci kaw Modou Sarr bu Ngaye Xem ba tey ci le 23 bi aussi troisième jour bi Poul Toog Joyin amoon na benn làmb foofu Gane Seck wala Gane Seras wala Ibou Senghor numéro 2 moom moo ko jël ci kaw Yangantin Yangantin bu soob ñaaxar ba tey buñ jógee pour toog jooyin dañuy jàll fi nga xamante ne moom mooy waxal jàmm waxal jàmm lamb ji fa amoon laga laga bu ndii door moom moo ko jël ci kaw Abdou Ndour Abdou Ndour bu mboltoña loolu moo amoon ci troisième jour tabaski bi le 23 juillet ci vendredi bi léegi ci samedi bi le 24 juillet ba tey ci événement wu tabaski fi nga xamante ne moom mooy marlooc commencé woon lendemain tabaski mu ngi doon trois jours la woon mu ngi di mu ngi doon jeex ci le vingt quatre juillet bi foofu ay nag lañ fa tegoon waaw ki nga xamante ne moom mooy Faa Mbuda wala Faa bu baasul moom moo ko jël ci kaw lagandong lagandong wala Papa Ndong bu Faajuj moo jël poids lourd yi moom Faa Bunda léegi poids léger yi ki nga xamante ne mooy Badara wala internet wala mbin jaab bu Marfaafa ko moom moo ko jël ci kaw Amet Jox Amet Jox bu Palmarin doomu champion bu mag boobu di biru Joala kooku doomi mbër jàngil bëre waaw Amet Jox moom la Badara internet daan final ci poids léger yi léegi raw gàddu yi foofu noonu ki nga xamante ne moom mooy Brisli bu marsulu ñu koy wax baak moom moo ko jël ci kaw Babou Dieye Babou Dieye bu Marfaafa ko rakk ci Grand Mbagnick Kalmundoor champion bu mag bi ñu koy wax ah waa di ko masawu ci combat yi nga xamante ne na bay bëgg a dee mook yeneen gars yëpp ñoom Ibou Ndiaye ñoom Balla Gaye ñoom Bombardier après loolu dinañ si ñëw bu ci fin wu vidéo bi mastawu gars yi donc fi nga xamante ne moom mooy tukaar foofu aussi amoon na làmb jël 24 bi ba tey ki nga xamante ne moom mooy foo Fodé Mbissane doomu fiisal bi moom moo ko jël ci kaw Baye Galas bu ngoy wala Doudou Khady numéro 2 waaw loolu moo amoon ci samedi bi le vingt quatre ci liñ jot ci information léegi la vingt cinq bi juillet ci dimaas bi fi nga xamante ne moom mooy lew na lew na fii ci wéccu ngéeñan ki nga xamante ne moom mooy jegaan jegaan bi dëkk jaareex moom moo ko jël ci kaw baabu fay bu fay ragg ci ngóor ndeb fay wala ngóor ndangaan ragg ci njangar moom baabu moo daanu final jegaan bu jaareex moom moo ko daan yóbbu nag bi foofu élage bu papa man ordinateur bu papa man moom moo jël poids léger yi ci kaw laa juuf laa juuf bu njànda fi nga xamante ne moom mooy kër Samba Gueye aussi ci Saalum wala ci ñoom baato foofu làmb ji fa amoon arobase moom moo ko jël arobase moom moo ko jël ci kaw dallasi waaw ba tey ci la 25 bi ci dimanche bi mboppatu simal bi ci la doon jeex foofu ñaari tonu ceeb lañ tegoon ceeb bu bëri mais ceeb bi waa simal yi dañ koo paacoo de <laughs> parce que poids lourd yi da ca simal moom moo ko jël ci kaw Souleymane Souleymane dëkk Caajaay poids léger yi kakao bu simal moom moo ko jëlaat ci kaw Joseph Ndour bu Palmarin wala Famb bu bu Palmarin rawgadu bi Cikri bu simal moom moo ko jëlaat ci kaw Seck bu Palmarin donc ceeb bi diggante simal Palmarin ak Caajaay la ko gars yi pàccoo loolu moo xewoon foofu ca simal bu ñu jógee foofu ñu jàll le 26 juillet bi le 26 juillet ba tey ci lënd bi. fi nga xamante ne moom mooy jam ñaajo amoon na làmb foofu Moussa Kaling Moussa Kaling bu Mar ko moom moo jël jam ñaajo ci kaw caaka caaka bu dëkk Foundiougne waaw poids léger yi Babou Dieye Babou Dieye rakku Grand Mbagnick bi moom moo ko jël ci kaw Youssou wala solo bu bawutan leen di wax ne loolu lañ jotoon ci information wu làmb vidéo bi nag mënuñ koo jeexal te waxuñu ci li nga xamante ne moom mooy actualité làmb parce que programme amul yaakaar naa gars yi arrêté nañ affaire yi xanaa mbapat yu ndaw ndawaan yi ñooy bugg di tëgg clandestinement ci li ma foog mais may lancer appel état wu Sénégal parce que yaakaar naa ne làmb ñu si nekk di si jëriñu bëri nañ ñu si yaakaar bëri nañ donc gars yi mënoon nañoo organiser affaire yi ba lamb yi am combat yu mag yi ay Balla Gaye Bombardier ay Siteu Papa Sow hmm? ay ñoom du Sané Rhinocéros Grand Mbagnick Kalmundoor ah ay ñoom Ibou Ndiaye Obali Pape Yekini combat yooyu yëpp yaakaar naa waroon nañ koo mën a bëre parce que entraînement dafa métti man sax waxaguma wax xaalis bi mais entrainement dafa métti mbër yi di entraîner di waajal di dugg di génn jékki-jékki ne lamb ji mooy loolu. comme promoteur yi demoon nañ sax ba naan lamb kii stade ba nga xamante ne day jël 5000 places par exemple Iba Mar Diop ñu ne ñoom pare nañ pour jël mille jaay jël mille places xam nga ñooñu pare nañ pour respecter les mesures barrières mun nañu bàyyi gars yi comme benn weer moo des gars yi égali mais xam nga état tamit kenn mënul xeex ak moom wee gars yi nañ gëstuwaat lamb ji xam ne ñi si yaakaar bëri nañ ci gars yaa ngi si buñ bërewul tamit mooy loolu bu leen neexee ñu entraîné bu am seen doole di agressé wala ñuy def leneen mais defuñ ko dañoo entraîné bu am doole ñëw di daan seen doole xam nga di. bëree di ñaxante pour lu ñu yóbbul papa lu ñu yóbbul yaay donc yaakaar naa état war a mun a gëstuwaat lamb ji mais waa lamb ñu ngi jooy parce que dëgg la tamit mbër yi si dëkk bi lañ bokk xam nga mbër yi ay noobu lañ mbër yi ak ñuy ànd ak mbër yi ak staffu mbër yi ay intellectuel lañ xam nañ li xew si dëkk bi donc boo leen ne def leen nii ak nii ak nii dañuy def loolu mais combat yaakaar naa benn weer neex naa muñ gars yi waroon nañoo mun a bàyyi gaay ñu bëre waaw un mois bi jeex gars yi tëj saison bi ba déwén ñu commencé waat mais lamb yi ñu reporté nii. loolu xaalis bu bëri la xaalis bu bëri boo xam ne gars yi ñàkk nañ ko investir xam nga ba au dernier moment nga ne leen dootul kii dafa métti dafa métti nguur gi nañ gestuwaat ndaw ñi dëgg la nag corona bi ñu ñëpp bëgg nañ mu jógee fii mais le président Macky Sall tamit moom moo waxoon ne son excellence moo waxoon ne on doit vivre avec le virus donc vivons avec le virus tamit ah dañ dund ak virus bi comme du fi jógee kay mais virus bi bu ñu naree tënk nii ba kañ. Hmm? président def na tournée am dugg génn ndox ay soxlaam léegi suñuy soxla geen mu téegoo ah day na waar de di ñaan yàlla mbas mi jóge fii Sénégal jàmm am fi defal ko mbooleem àdduna di jaajëfal gars yi di leen di wax ne bu leen fàtte abonné ah rang muy suivre Lamyn TV bëgg nañ leen zulum zalam ba mercredi incha allah